ko fa bi qadri taqatihi kon nekk na ci kem kattanam ñi nga jàng woon ci jawhar nag moo gën a neex a takk dañoo waxoon ne daa am yent yoo xam ne nga ko war a tegale su fekkee mën ngaa taxaw julli moom te doo wóoru da ngay taxaw julli te bañ a wóoru ci dara su fekkee taxaw gi faaw nga boole ci wóoru kon nga taxaw te wéeru yaa yi ma wax léegi moom mooy taxaw bañ a wóoru ak taxaw wóoru la ko ñetteel nag mooy bu fekkee mën ngaa toog te doo wóoru ci dara kon ngay toog julli toog julli gàttaru te bañ a wóoru ci dara dara su fekkee mën laa ñàkk a wóoru rek nga door a toog te wéeru bu fekkee mënoo dara dara ci toogaay nag nga door a tëdd loolu lañ tegale woon ci jawhar dañ ne woon yent yooyu nag moom boo ci mën def ko ku yéesu rek sa julli yàqu su fekkee mën ngaa julli taxaw te doo wóoru ci dara soo jullee taxaw wóoru ci dara sus ko sa doole ba nga xam ne bu daanu woon nga daanu sa julli yàqu ba tey bu fekkee mën ngaa julli taxaw wóoru nga bëgg la noppal far toog far bañ a taxaw taxawaay boobu te wéeru ba tey julli gi yàqu ba tey bu fekkee mën ngaa gàttaru bañ a wéeru ci dara ci bi ngay julli ba ngay ba ngay julli nag toog da ngaa toog wéeru ci loo xam ne moom bu rasul rek nga ànd ak moom daanu ba tey julli gi day yàqu kon jàppal ne yent yooyu dañ ko war a tegale boo ci man def ko boo ko boo ko teel jàll ci ba ci sës boo ci man te defoo ko bëgg la noppal def na ko nga yées nag sa julli yàqu li waxagul nag fii ne mooy ku tawat mënta taxaw day toog su fekkee mën naa ferenk laayu baax na su fekkee mënta ferenk laayu nu mu toogee rek baax na wa in lam yaqdir ndem attanut xaala sujoor ci sujoor tel yoo mi kon na junj bir rukoo ci rukoo ba wa sujoor ak sujoor ba bu yokkoon tey nekk sujooruhu sujootam ba ak fada ci gën a suufee min rukoo yi ci rukoom ba su fekkee mën laa sëgg sujoot na nga war a sujoote mën laa sëgg rukoo na nga war a rukooye waaye waaye mën nga ca dara kon da nga koy junj rek mooy da nga koy ñëpp da ngay ñëpp rukkoo ba ñëpp sujjóot ba rek am sa kàttan waaye maanaam buñ seetloo ba xam ne sub sëgg kët fii la mën a am da ngay def boo di sëggal rukkoo ba bañ a def la nga mën lépp te booy sëggal sujjóot ba def la nga mën lépp xam nga sujjóot moo gën a suufee waaw kon nag léegi yow mën laa sëgg ba fa nga war a am dañuy seet booy sujjóot moom ngay dem ba fa nga mën a am boo rukkoo na nga wàññi ci asluf ngir mu teqale sëggal rukkoo ba ak sëggal sujjóot ba waaye lañ yàq dindem attanut sàllaa mu jullee xalaa jëm bi ci wetam nga al aymani kay ndey joor imaa am ci ak junju bu fekkee daray toog moom mënoo ko tëdd rek a des kon taamu nañ nga tëdde si wetu ndey joor tey jublu xibla boobu lañ gën a taamu su fekkee mënu ko mu tëdde wetu càmmooñ ba tey tëjum xibla da cee teg nag waaye lañ yàq dindem attanut ilaa xalaa zahrihi dara ci gannaawam fa xala mu def daalika loolee soo tëlee tëdde wetuk ndeyjoor tëlee tëdde wetuk càmmoñ kon ñu taamu nga jaaxaan boo jaaxaanee say tànk day jëm xibla sa bopp jëm fa ca des liki bu dee ci noonu suñ xibla daa xaw a féete penku kon say tànk mooy jëm penku sa bopp jëm sow waaye nag moom tegal yett yooyu dañuy wax li sopp rek la maanaam tëddit moom boo ko si bay tëdd nga njëkki tëdd wet ndeyjoor boo ko tëddee dem ci wetu càmmoñ boo ko tëddee dem ci jaaxaan li ñu sopp rek la bu la neexee mën ko ba noppi mën a tëddee wetu càmmoñ bàyyi ko tëdde ndeyjoor mbaa nga mën tëdde càmmoñ bàyyi ko jaaxaan du ko tee baax wala yu axiru di yeexe du sañ a yeexe asalaatu julli ga itaakaana dem nekk na fi xaqlihi ci am xelam wala yu sallihaa na ko jullee rek te xadrimaa ci kem la nga xam ne yëttu yox dana ko àttan maanaam nag loo wéradi wéradi te sam xel nekk na julli gi maanaam tagguwulaa sago sa xel ba rek bu jotee nga jullee ko nanga ma ne doo wax ne daay bàyyi ba wér ndax mënumaa julliwaale soble si te mënumaa tàggoog moom mbaa su ma jullee léegi na ma ko bëgg di ma ko ni ma ne déedéet moom daal li la sant moom mooy loo wéree di wéree di waaye yaa ngi ànd sa saw rek su waxtu julli wa jotee jullee ko na nga ko mën a sa jaan wàcc waaye doo am sañ-sañ bi yeexee ko nag ba waxtu wa jàll soo ko yeexee ba waxtu wa jàll dina bokk ci bàkkaar yu màgg yi wa in lam yàq dem attanut xalaa masil maay ci laal ndox li darori ngir lor bi ju nekk ci moom aw li ànd wala ngir naka moom laa yoo jëli du am man koo xam ne yéen naa yu dana ko jot iyaaxu ndox ma teye moom mu tiim daa wax ne bu tawat ci tax yi mën laa laal ndox maanaam benn nga xam ne yaa ko xam sa bopp wér a wér mbaa ku xam faj moo la wax ne la yow kat boo jëfandikoo ndox mi nangam dal la mbaa sa tawat ji dina yéex wér mbaa dina gën a metti kon sa jaan wàcc na da ngay tiim rek te bàyyi ndox ma moo xam jàppale war moo xam sangu farataa la war ba tey bu fekkee boo amoon ndox sax mën koo jëfandikoo waaye mënoo ko wuti te gisoo ko la ko andil koy ba tey kon da ngay tiim rek sa jaan wàcc te indi muy jiit ndéem amut man koo xam ne yu naa yu lii dana ko jot bi turaabam suuf tey moom kon mu tiim bil xaayit ca miir ba ilaa jaali yi jëm ci wetam in kaalan di nekk ndéem nekk na moom miir ba tiinan di ban aw xaalis wala mu nekk ci kawam tiinun ban ba tey bu fekkee ne bëgg ngaa tiim waaye amoo ku la jox suuf suuf moom moo gën ci lépp lu ñuy tiime waaye gisoo ku la ko jot bi kon dañuy seet miir bi den ak yow su fekkee dañ ko miire banuf kese bu kenn lëkkut mbaa boog kaw dañ ko raaxe ban kon mën nga caa tiim kon mën nga mën nga caa tiim dañuy bañ nag buñ ko raaxee ciment wala boog muy mooli ciment xam nga bu ko loxol dama adama soppee kenn du ci mën a tiim waaye jàppal ne miir bi sës si yow bu fekkee ne ban rek la te kenn lëkku ko mbaa dañ ko raax ci kaw ak ban mbaa boog muy mooli mbaa mbaa muy doji carrière rek mbaa doji kew mbaa doji dëgg lañ tegale ba mu dim miir yëpp nga xam ne xol damaa dem soppiwu ko mën nañ caa tiim kon moom mi war a tiim boobu ko jot li suuf na tiim ca miir boobule. fa in kaana dem nekk na xale yi ci kawam gis suñ laso aw jiiru wala ciment fa laa yette yemoo mu du tiim bi ci moom su fekkee ne miir ba raax nañ ko ciment mbaa laso nañ ko mbaa soppi nañ ko ci genn wet kon doo ci mën a tiimati. wala musaafiru aji tukki ja yaa xusuwoo mbir moom da koo jàpp da koo jot rek al waxtu waxtu wa fayet kii dañ ci ban xab xaadin buy remb-rem bi nga xam ne laaya julli du am ay na yu salli fu muy jullee fal yan sil na wàcc xan daabatihi walis daabaam ja wa yu salli te muy julli fii ca ban ba xaa iman mbir muy aji taxaw yow mi uddana junj bi sujjóot ca sujjóot ba ax fada mbir mu muy gën a suufe mi na rukkoo ci rukkoo ma daa tudd aji tukki waaye ku tukkee ku tukki wute ci yam ku war ak ku dox ak tànk ci yam su waxtu wa demee ba xat nga xam ne daal des ci waxtu julli wa baree tut te moom mu toll ci béréb boo xam ne dafa def banub rembi-rem bi nga xam ne su fa jullee na war a jullee ci rukkoo ak sujoot ak toog na war a tooge ay yéreem yàqu kon daañu ko may bu fekkee daa waroon mu wàcc bu fekkee ne warutoon ba tey baax na mu taxaw noonu rek julli ca kaw ban boobee di rem rem bi mbaa ca ndox moomee daga moom bu wàccee du lab du def dara dana mën a taxaw rek kon daañu ko may mu julli julleem gépp gépp nekkub taxawaay nga xam ne du àgg suuf benn yoon day junj rek rukkoo ba ak sujjóot ba waaye nag bu fekkee ne amul genn wéra di gu côté mën a sëgg moom bu dee sëgg di rukkoo day jàpp ci wóom ya ndax mën naa jàpp ci wóom ya sujjóot ba nag moom du mën a àgg suuf ndax bu àggee suuf ay yéeneem yàqu kon day junj ay loxoom mu jëm ci suuf te yéene ca sujjóot ba naka noonu tam toogaayu diggante ñaari sujjóot ñi it di ko yéene rek waaye du ko mën a ràññeel ndax julleem gépp moom aw taxawaay dong lay doon te na nga junjee sujjóot ba na gën a suufee na nga junjee rukkoo ba fay la ñaq dëndeem attanut aneen si la mu wàcc fii ca moom sàllaa kon mu julli xalaa daabati yi ci kaw daabaam ja il xiblati mu jëm xibla su fekkee mën laa wàcc nag lay kaw daaba ja kon sa yeboo far jullee ci kaw daaba ja te jëmale daaba ja xibla ba tey sax bu fekkoon ne ba wàccoon ci suuf si da ngay ngiroo yaa ngi ci kaw daaba ji waaye boo wàcc moom ci kaw ban bi da ngay ngiroo mooy say tànk day nuuru ci biir kon da ngay far rek nekk ci kaw daaba ja te jullee ci kaw ndax mu daaba ja bu ngiroo itam xëy na kenn romb la ku la mën a xett ni walil musaafiri ñeel na aju tukki ja an yetta naf la mu naafila xalaa daabati yi ci kaw daabaam ja fii safari ca tukkeem ba xay suma tawaja fu mën di jublu bii ak moom in kaana dem nekk na safaran di ab tukki tuq sa bàññi fii ci moom asalaatu julli ga bu fekkee da ngay tukki tukki boo xam ne mat na doxu wàññi maanaam mat na soixante-douze kilomètres baa nga ne quatre-vingt-trois kilomètres ci yenn tolloo yi nga xam ne ñu wute kon daañu la may boo bëggee julli julli naafila te fekk nga war daaba moo xam ne ngaa war fas wala lu mel ni gëléem yooyu kan daañu la may boo bëggee naafila fa daaba jëm rek nga julli jëm foofa mais na nga xëy rek jëm Thiès wala jëm Dakaaru rek war sa daaba daañu la may boo bëggee julli yoor yoor rek fi daaba jëm rek nga julli jëm foofa nekk ci kaw fas wi doo ajoo ngay wàcc ndax fi wax léegi Thiès mbaa Dakar yëpp mat na ndox wàññi ba ëpp ko wala yoo tir na wetari sax xalaa daabati yi ci kaw daabaam ja incha allah ndéem soob na ko wetar sax li muy màgg-màgg fi mu toll wetaram boo leen julli suñu moo ci gën a màgg waaye du tee mën nga koo defee ci kaw daaba ji bu la neexee. wala yu sol yi du sañ a julli nag al faridata julli farata al faridata wa in kaana ak doonte nekkoon na mariidan di aji tawat moom du ko sañ a jullee illaa bil ardi dale ci suuf waaw nee na nag bu dee julli farata moom faaw nga wàcc jullee ko ci suuf ne nga mën ngaa wàcc doonte na ngaa tawat sax waaye mën ngaa wàcc da ngay wàcc rek moom jullee ko ci suuf waaye doo ko jullee ci kaw daawe ji illaa an yekkoon rek bu dafa nekk inna sala ndem wàcc na itam salaamu julli jaalisan mbir mi aji toog imaan ci ak junj li maraw bi ngir tawatam ja fal yu salli kon na jullee xala daabati ci kaw daaba ja pax da am tuuxa fa ci gannaaw ba dee fi ko taxawal la wëññeel ko wa yustaqbala te dee fi jubali bihaa ci moom alxiblatu xibla lu may nag moom yaa ngi ci kaw daaba ji bu la forcé ne la wàccal kenn du jullee ci kaw daaba itam ba nga wàcc it yow da ngaa tawat tawat joo xam ne so soo wàccee doo mën a taxaw dangay àgg suuf rek di junj waaw ndegam da ngaa tawat tawat joo xam ne soo wàccee itam da ngay toog rek di junj di junj rek ko sujjóot waaye yow mën laa rukkoo mën laa sujjóot toog rek ngay mën doo mën a taxaw kon ko bu bàyyi la ci kaw daaba ja kon nañ la koy taxawalal ba aajo yeew ñu yeewal la ko nañ la koy taxawal jëmale la ko xibla su aajo yeew ñu yeewal la ko nag nga jullee noonu ci kaw daaba ja wa man raa fa ku bor yi ma al imaam yi ànd ak ilimaan xaraja mu génn fa xasala ca mu raxasi addama deret ja su ma banaa topp mu jokk bu fekkee da nga ànd ak ilimaan génn julli ba yàgg ngay mbori xam nga mbori sobe la te boo yeexee boo tuut bu waree nga taqal jàkka ja loolu dis ko sañ kon da ngay génn dem raxase ko fi saasa léegi nag boo raxasee ba noppi da ngay da ngay ñëw àggal la nga julli woon la nga julli woon jotoo ci mooy da ngay da ngay da ngay bàyyi te yéene yéene yi maa ngi ko raxas ñëwaat àggale ko defee nag boo raxasee mbor mi nag nga àggale la desoon ci julli ga ci kaw sart yo ma lay bëgg a wax maalam yetakallam li feeg waxut bu fekkee ne ba nga demee di ko raxas yi diggante wax nga fi rek moom yàqu na faaw da ngay tàmbaliwaat aw yam si wala li fekk dëggut xalaa najaasin ci sobe ba tey jotoo fee dëgg ci sobe waaye bu fekk yoon nga fee jot dëgg sobe itam noonu ba tey da ngay tàmbaliwaat tey du weesu woo fu fu gën a fu fu gën a jege foo ko mën a raxase jàll fu gën a sori tey itam muy xib la ci loo xam ne ci sa coobare la daa bari sart ci wax yi bàyyi yéen yi waaye li tax mën a jokk moom ci la mu defoon day aajo ay sart sarat waaye bu ci sart dajee moom mën naa dem raxas suñu bori ma te am yéene yi wëccu ma li ma doon julli su ma dikkee daa koy àggale ci sart yi dajee nag mën koo àggale noonu te bañ a wàcc ci la mu defoon wala yóbbu ñu di yokk xalaa rek xatin ci ab rakk lam ta timma bopp ma tudd fii sañ jotee xaa ànd ak ñaari su jotam ya wala yoo xaa na ko wàcc nee na nag rakk boo xam tàmbaloon nga ko waaye jutut juttoon àgg ba àgg ci ñaari su jotam doo ko limaale ni ki da ngaa dem ba rukkoo rek mbori dikk nga dem di ko raxasi kon boobu ràkk doo ko waññiwaale ràkk ba ngay waññiwaale bi day doon boo xam ne demal nga ba julli ko ba def ñaari sujjootam ba àggal boobu ngay waññiwaale waaye li fi àgg woon foofu rek boobu doo ko waññiwaale boo seetloo la mu wax ne ku bari ànd ak ilimaan dalay wan ne la maa moom moom loolu mooy àtteem kon nag kenn kuy julli te lañu wute ndax ilimaan ba tey bu fekkee ne ilimaan ratib la di julli moom dong itam xam nga day wecc mbooloo moo tax waaye nag kenn kuy julli rek moom ndax bu dee bori dana sañ raxas ci mbori ma ñëw jokk ca lam julli woon bañ koo wacc wala déet loolu am nañ ca wuute tey li ñu wax ne ku ànd ilimaan doon maa moom baa muy jëmm ilimaan bu dee ratib mën na rek bu dee bori mu raxas ci mbori ma ñëw àggal lam doon julli te bañ koo wacc day fekk nee nañ muy boroom xam-xam waaye kat li ci ëpp moom bu dee koo xam ne xam-xamam demewut noona ah saye boo rek bu dee bori te dagg mënta ñàkk ndax day satt tati di gaawu bari mbaa mu nar a taqal jàkka jo xam doon jullee na dem dagg bu wér a wér rek na dagg bu wér a wér rek dem raxasi bu ñëwee tàmbaliwaat loolu daal moo gën a wóor ndax sartee daa bari te ku amu teey ku amu xàmmee bu baax a baax moo mën a matale sart yooyu ba noppi ñëw nag àggale te ak julleem dara du ca sikk wala yan sarifu duwal batiku li damin ngir deret xafiifin ji aji woyof wal yaftilhu na ko borom rek bi asaabihi ci ay baaraamam illaa an yasil mbari bu day yool aw yàqutura wala muy toq daa wax ne bu yëgee ne mi ngi bari waaye tuuti rek mooy génn kon bu mbàyyi julli ga na koy fomp ndànk ci ay cati baaraamam rek ndax xëy na balaa yàgg far julli gi noppi mu génn benn yoon waaye nag bu tàmbalee satatati mbaa muy toq moom say bo mu gaaw génn ndax daal di bari ba weesu lañ ko jéggaloon te bu yeexee itam bu dee jàkk mu daal taqal jàkk ja kon dagam di yool mbaa muy toq mu ne daal di génn wala yóbbu ñu du jokk fii xay in ci am wàccu wala xadasin du ci ageen am tocc bu dee julli ba yàgg mu wàcc wàcc moo xam ne daa soppiku ñu wax ne kon sobe la kon nee na faaw bu ko raxasee ba noppi day tàmbali waa julli rek waaye du mën a àggale fa mu toll woon rek ne laa julli woon baax na déedéet am toj ba tey noonu la bu doon julli ba yàgg am jàppam toj koy du wax ne léegi daay dem jàppiwaat ñëw àggale bu demoon dem ba ci taayu ju mujj jë laata muy sëlmal am jàppam tojit day jàppiwaat rek ba noppi tàmbaliwaat julli ga waaye du mën a jokk ci lam julli woon wa man raxafa ku bari baax da salaami imaam yi ci gannaaw sëlmal ilimaan sàllama mu sëlmal wan sarafa te mu wëlbatiku nee na koo xam ne ilimaan daa sëlmal ba noppi nag moom mu yëg ni mu ngi tàmbalee bori kon na ngaa wax rek asalaamaaleykum daal di génn benn yoon du aajo mu dem di raxasi ba noppi ñëw door di wax asalaamaaleykum ndegam moom ilimaan sëlmal na ba noppi mu door tàmbalee bori na wax rek asalaamaaleykum daal di génn benn yoon wa in raxafa ndeem bori na xablu salaami ci njëkk sëlmalam ba in sarafa mu wëlbatiku wa xasala te mu raxasi addama deret ja su ma rajaxa toog mu dellu si fa jàll sa dem toog wasallama te mu sëlmal daa wax ne nag bu fekkee ilimaan dafa dem bay taaye waxawul asalaamaaleykum yow mi maamoom na nga yëg ne tàmbali ngaa bori kon kat doo mën a njëkk a sëlmal ilimaan da ngay dem rek raxas si ndegam sotti ga daa bari say boo gaaw génn raxasi ko boo raxasee ba noppi nag xam nga ne ci taaye ngeen toll woon bu ko defee bu fekkee taaye woo woon kon da ngay taaya bu fekkee nag taay woon nga it ñu taamu nga baamuwaat taaya ja door a wax asalaamaaleykum ndax dañoo bëgg asalaamaaleykum topp taaya wali raaxi fi ñeel na aji bari ja an yobni yo mu jokk fii mën a silihi ci këram nga daa ko tudde këram rek waaye béréb bam nekkale la bëgg wax isa ya isa ndeem naagu na an yudrika mu jot baqiyata salaatul imaami la def si julik ilimaan ba bu la wóoree ne ilimaan sëlmal na ndax dégg nga ko ci rajo ba mu sëlmal mbaa wóor na la ne boo demee doo amaat dara ci julleem kon saye boo àggale sa julli fa nga doon raxase mbor yi ma ndegam mënees na faa àggalee illa fil jumuhati ndare ci julli juma fala yëbb nii kon du sañ a jokk illa fil jaamihi ndare ci juma ja fekkoon day julli juma moom xam nga julli juma moom faaw ci juma lañ koy defee kon faaw day ñëw ba dugg ci biir jumaa ja fu mu njëkk yam rek ci biir jumaa ja daal daal yam fa àggale julli gi doo yëg na ne ilimaan sëlmal na du tee ñëwaat gi moom du mën a ñàkk ba dugg ci biir jumaa ja fu mu njëkk yam rek ci biir jumaa ja daal daal yam fa àggale julli gi doo yëg na ne ilimaan sëlmal na du tee ñëwaat gi moom du mën a ñàkk wayax si dina raxas xalil dami aji neeyi deret mi na saw bi ci malaan ma nee na nag deret moom mooy sobe si nga xam ne am na lu la ci jéggal mooy bu fekkee la la ci taq daa yem ci tolloog dërëm mu baax la rek mbaa mu yées ko kon ñu jéggal la ko dërëm mu baax la nag mooy baax la mooy berkelle boo ko gisee agul ci guddee la fas waaye moom mos mbaam amoon amoon ci dëkk bi nu nekk fii ci jëm boo xoolee wóom ba ci biir day am ab digg bu soxul kawar kuppil kuppil gam kuppil tax ñu koy wooy ab dërëm lu toll noonu nag bu fekkee la taq ci deret noonu la toll rek lala tax dara bu fekkee daa yaatu rek ne kuppandal boobu mbaa matu ko sax ko dara sobel waaye jégal la ko ak lu mu doon doon ci xeet dara rek daañu la ko jégal su ko ëpp nag moom faaw nga dindi ko. wala tuxaat defu baamu asalaatu julli ga illaa min kasirihim dara ci aji bare mi ngi noonu dara ja bëriwul rek du aajo ngay baamu julli ga bari ga nag mooy mu ëpp rek dërëm bu baax la boobu ñu waxoon léegi. wa qalilu kulli najaasatin aji néewi sëpp sobe xëyrihi sulu deret wa kasiruha ak aji bareem sawaam wa yemoo lañ nee nag boo xasee wees deret moom lu sobe tuut tuuti des ko mën a jéggale da nga mënees na ko moytu rek faaw ñu war koo dindi bari gaag ñëw ba ñoo yemoo mu ne bu doon saw mu aay wala xayta yu nekk sobe wala yooyu wala sàngara lu mu néew néew rek des ko jéggale faaw ñu war koo dindi wa damul baraaxis dereti fel yi lay saxal yi dee di ko war xas lu war a xasam nga dereti fel moom nee lu mu bari bari jéggale nañ ko léegi mu ci teg sax ne illaa an yata faaxisha dara bu dafa ñaaw ba jéggi dayoo maanaam bu ñaawee ñaaw ba nga xam ne rus na koo génnaale ci moroomam nit ñi ko gis daal su boobaa itam du tax mu war mu raxas ko dañuy sopp rek mu raxas ko te bu nekk biiru julli bu mu ko dagg ngir ne sopp nañ mu raxas sama dereti fel ji déedéet bu dee julli ci julli ba noppi rek ndax dañu si dañu bañ rek mu génn muy muy naq muy ñaaw muy naqaree xool rek dañ ko dee xool muy ñaaw ci moom rek lañ ci bañ waaye kon du jar muy dagg julli ngir loolu maanaam daal xalaatu la dagg ab julli ngir loolu baabu ni ab bunt la fi sujjóotul xuraan ci sujjóoti alxuraan bu sujjóotul xuraan ci sujjóoti alxuraan ihda xasharati fukk la ak benn sujjóotin ci ay sujjóot wax yee ñoom alxasaay mooy yañu dogu lay sa fil mu fasali di nekk ci mu fasali ya min xaay ci ñoom seyun dara sujjóot yi nga xam ne ci yoonu Maalik moom daañu fa sujjóot fukk la ak benn yooyu lañ dogu ne boobu tolloo sujjóot ca mu fasal yi moom moo tàmbalee xujuraat jëm si ci suuf amul ci benn sujjóot bu nekk foofu bu dee ci yoonu Malik bu dee ci yenn téere yi moom ak yenn ngir yi am nañ ko waaye bu dee ci yoonu Malik moom boobu nekk ci suuratu tafsiil moo ci mujj la ko féet suuf amaatu ko fi alif laam miim saad am na ci alif laam miim saad inda xaw yi fa waxam ba wa yusabbixuunahu wa lahu yasjuduuna soo asee ji yes ji doon foofu lay sujoote waxoo moom aaxiru xaa muy mujjug saar wa fa man kaana ku nekk fii salaat ci ak julli yes ji doxaa dana ko sujoot fa itaa sajada xaa ndéem sujoot na ko xaama mujj mu taxawaat mais xaama mu jóg waxaraa te mu jàng mi la anfaal ci lan faal aw min xëyri xaa wala lulu moom maa la nga xam ne tayassara jàpp dina xale yi ci moom su ma rakaxa toog mu dooraru ko wa sajada dem sujoot nee na yes ji doon jooju moo mujj ci laxaraaf comme bu fekkee da nga doon jàng saaru laxaraaf yépp nga xam ne ba fa agsee mooy doon sa dee bu rukkoo kon rukkoo dafay tase sujjóot te te doo leen defandoo ñoom ñaar su ba fa agsee da ngay njëkk sujjóot sujjóot alxuraan ba noppi ndax moo fa dëkk boo siggee nag ca sujjóot alxuraan ba bul baamu faatiha ndax faatiha bëgguñu ko baamu ci baraka ñaar yoon doo baamu faatiha déedéet boo jugee ca sujjóot alxuraan ba dañoo bëgg nga jàng lan faal mësus ci moom mbaa leneen ci alxuraan door a rukkoo ndax ñoo bëgg rukkoo bi topp ay jàng bëgguñu mësusaloog sës ci su jëlee xoraan bi fi saa si saa sa bu dee nag ñi jàng ñi jàng robe moom ci buñ dee naafile ci alxuraan daanaka moom du leen loolu du am jafe-jafe ci ñoom ndax robe ci ma nga ci kama axraja ga dañuy ak si foofu daal di sujjóot jógaat jàng ba ca kama axraja ga ñu daal di taxaw foofu door a rukkoo waaye bu doon kuy jàng aw saar wépp nag bu faasee ko ñaar yëpp dafay tase moom wa fi rax di am na ci suratul rax yi ndax xawli fa waxam ba wa zilaaluhum bil ghuduwi wal aasaal bu waxee baat wal aasaal ci suuratu lax di foofu lay sujoote wa fi naxli am na ci suuratu naxli yaxaafoona rabbahum min fawqihim wa yafxaloona maa yumaroona bu waxee maa yumaroona foofu lay sujoote wa fi bani israil am na ci bani israil dañ ñu ne ko suuratu israil wa yaxiroona lil adxaani yabkoona wa yasidoon xushooxan bu waxee xushooxan foofu lay sujoote wa fi mariam am na ci suuratu mariam ida tutla alayhim ayatu rahmani xarru sujjadan wa bukkiyan bu waxee wa bukkiyan foofu lay sujoote wa fil xajji am na ci suratul xajji awala xaaj njëlbeenam nga xajji dafa am ñaar waaye benn bi la waa mal li sujoot mooy bi ngay jëkk a jot ci boone wa man yuhinillahu fa maa lahu min mukrim fa maa lahu min mukrim inna laa yafalu maa yashaaw maa yashaaw foofu la am bu dee ci yoon Malik am nañu ko am ci mujj nag ci ay lis na ama yurkaxam was judoo joojee am nañu cee sujoot ci mujjub xaj ji ba tey waaye moom bu dee ci Maalik moom fii la ko amee waxil furxaan am na ci sootu furxaan anas judi ma ta'muruna wa saadahum nufooran boo waxee nufooran foofu ngay sujoote waxil hudhudi am na ci sootu hudhudi mooy sootu namli bi faa tudd ba tey picc moom mooy sa njuburu moo tax ñu koy tudde hudhud léeg-léeg allahu laa ilaha illa huwa rabbul arshil azim boo waxee azim foofu ngay sujoote wa fi alif laam mim tansil am na ci alif laam mim tansil wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum laa yastakbiruuna alislaam boobu mooy sóoratu sajdati lañ ko miine sóoratu sajdati waa seej yastakbiroona waa seej laa yastakbiroona foofu la ñuy sujoote wa fii saad am na ci sóoratu saad dañ ko sóoratu daawud ba tey fastaxfara rabbahu wa xarra raake wa anaaba boo waxee wa anaaba foofu la ñuy sujoote waxee la waxees na ne hinda xawli fa waxam ba la sulfa wa xusna maabin am nañu ne dal agsi ci wa xusna maabin waaye wax ji gën a wóor moom wa anaaba ji moo gën a wóor ci yoonu Maalik wa fi xaamim tansil nekk na ci xaamim tansil muy sóoratu tafsil wasjudoo lillahi allasi xalaqahunna in kuntum iyaahu taabudoon boo waxee taabudoon foofu nga sujoote wala foofu nag moo ci mujj bu dee ci yoonu Malik wala yasjud sujoot ak sayra sujoot ba fi ci laawat jàngal xoraan nga ilaa xalaawu doy ndari mu ànd kum jàpp daa wax ne booy jàng ba agsi ci bérébu sujjóot kat bala ngaa sañu sujjóot day fekk nga amee sarti julli mooy amee nga laabu xadas amee nga laabu xabas jublu nga xibla wala ma wayu kàddu dana kàbbar laxaa ñeel ko wala yu sallimu te du sëlmal min xaa ci moom maanaam boo dee sujjóot sujjóotu alquran booy sëgg da nga wax allahu akbar waaye nag boo ko sujjóotee ba àggal doo wax asalaamaaleykum ndax nag booy siggi ca sujjóot bi da nga ko wax am doo ko wax xam nga dane moom booy sëgg di sujjóot sujjóot da nga wax allahu akbar booy siggi nag dañuy nattali waxam da nga ko wax am doo ko wax wax ci gën a wóor mooy waaw da nga ko wax moo gën kay moo tax mu naa woo fit takbir nekk na ci kàbbar ga fi rafi ci siggi ga min xaa bàyyi ko ci moom saxatun ak yaatu wa in kàbbara waaye ndem kàbbar na foofu moom axab moo gën a sopp ili naa jëm ci nun malik maanaam daal boo sëggee sujjóot moom ci sëgg boobu na nga wax allahu akbar moom booy siggi ndax la nga wax am doo ko wax nag wax ga moo gën bañ ngaa wax waaye doo ci waxaale asalaamaaleykum nag moom doo ci sëlmal benn yoon ah wa yasjuduha dana ko sujjoot man qara'aha ku ko jàng fil faridati julli farata fil faridati julli farata wan naafilati ak naafila maanaam booy julli farata ak booy julli naafila ñoo ci yemoo boo agsee ci bérébu sujjoot sujjoot alxuraan na nga ko sujjoot waaye nag sib nañu nga tey ko ba noppi di di julli julli farata ba noppi jàng ca laayo buy tax a sujjoot naafila moom bañ ñu nga tey ko ba noppi jàng ca laayo buy tax a sujjoot waaye nag bu dee julli farata moom nga tey ko jàng ca laayo buy tax a sujjoot moom tàmmuñ ko wees juddu xaa dana ko sujjoot man xara axaa ko ko jàng bax da subhi ci gannaaw suba maalam yusfir li fekk leerul nañ wa baax da xasri ak gannaaw takkusaan maalam tasfarra li fekk gelut asam su jant bi maanaam sujjoot alxuraan ñu ko xaw a jàppe ne ak naafila te xam nga bu bu bu ñaar bu bu bu fajar xasee fenk ñaar rakk fajar rek lañ maye nga julli ko ci mboolem xeet naafila yi nga xam ne kon waroon nañoo si foofu itam sujjóotu alxuraan waaye daañu la may nag li fekk muxtaaru suba jeexut ba asee ci bérébu sujjóot rek ñu may la nga sujjóot muxtaaru suba nee mi ngi yem ci bu xamee leer ba nga xam ne bu nit dee ñëw boo xoolee kanamam xàmmee ko bu xasee ak si foofu nag moom boo su boo asee bérébu sujjóot na nga bàyyi bu sujjóot waaye li fi asee goo foofu rek moom booy jàng alxuraan ba asee bérébu sujjóot daañu la may nga sujjóot jullit néewut noonu la mel ci boobu wàll dañ koo xaw yebaleeg naafi la nga xam ne moom it ñoo bokk àtte ci loolu léeg-léeg masaalu subay jeex dañ ko mën waaye bu masaalu suba xasee jeex ñu dugg ci daroor yi deesu ko mën dañ koy sib ba jant bi tàmbalee fenk xam nga naafila day araam ba lépp fenk ba noppi sib ga ñëwaat ba yëkk ba mu yëkkatiku ñetti meetar loolu yëpp nag moo su jot alxuraan bi lépp noonu lay mel ñoo bokk boobu àtte xam nga naa takkusaan dañoo sib naafila boo xasee julli takkusaan ba noppi dañuy sib nga naafila waaye daañu la may li fekk muxtaarum takkusaan jeexut daañu la may doo jàngal xoraan baas ci bérébu sujjóot nga sujjóot daañu la may itam nga jullee fi mu néew waaye nag bu fekkee ne takkusaan suuf jot na ba kër yi jàppaloo naaj wi xaw a xong weexatul léegi loolu mooy muxtaaram takkusaan jeex na su boobaa dañuy sib ku jullee ak néew sib ku sujjóot sujjóotal xoraan te bu jant bi tàmbalee sotti lépp soogum araam lay def dana war sib waaw muy naafile gi muy jullee gi néew bi muy sujjóotal xoraan bi ñoo bokk àtte ci googu wàll baabu ndi ab bunt la fii salaati safari ci julli tukki wa man saafara ku tukki masaafata arbaxati burudin diirub ñeenti barit waxeete moom thamaniyat moo juróom-ñett arbaxona ñeen fukk milan ci ay mil fa xalehi war na ko waruk sunna rek ak yàqu suram wàññi asalaata julli ga fa yu salliha tem koy julli rak xatay ni ñaari rakka nee na bu fekkee diir bi ngay tukki mat na ñeenti barit ñeenti barit boo ko dee seet war naa mat quarante huit ci ay mille quarante huit ci ay mille mille na jege na kilomètre ak genn wàll am na tollal boo xam ne boo ko seetee daal dana war a mat soixante douze kilomètres daanaka am na beneen tolloole boo xam ne boo ko ca seetloo day mat quatre vingt neuf kilomètres yu tegal ay mètres bu fekkee la ngay tukki mat na loolu daal sunna la julli gu matan ñeent rakk boo koy julli nga julli ko ñaar rek bañ ko julli ñeent nga xam ne nga wàññi ko sàmmante sunna si moo gën nga sawar ba mbaa xam ba di ko matal nga julli ko wàññi ko moo gën nga matal ko ci yooyu jamono ndax wàññi gi sunna la ilal maa xam ne dama rek timis fala yaqsurha moom du ko wàññi julli nga matoon ñeent rek moom la ñuy wàññi waaye koo xam matutoon ñeent mel ni suba ñaar la woon kenn du ko wàññi timis ñett la woon kenn du ko wàññi wala yaqsuru du wàññi xataa yu jaawi sa ba te mu jéggee bu wóotal misri néegi jënd la muy néegi dëkk bu mag ba watas yi te ñu mujj xalfahu di nekk fa gannaawam nga xam ne lay sa bay yedda yi déet mu nekk ci diggante yaari loxoom mooy ci kanamam rek wala bi xisaa yi déet mu nekk ci tolloog moom min xaa ci ñoom cheyun dara nee na boo nekkee dëkk bu mag na nga génn di tukki bala ngaa tàmbalee wàññi da ngay dama dem ba nga xam ne séenoo ci sa kanam benn kër bokk ci dëkk bi fi nga toll sa wet tam tolluwul ak benn kër dem nga daal ba tolluwul tolluwul ak benn kër bu bokk ci dëkk bi sa kanam itam séenoo benn kër bu ca bokk su amee sax dëkk bu ndaw bu fa jege boo xam ne foofu lay walloo si foofu lay duggee si marché yi demee noonu sax da ngay dem ba weesu ko door a tàmbalee wàññi tax nga xam dañu koy far boole ci àtt dëkk bi moo tax su ma laa yittim mu topp du ma tan xataayir ji xam ba te mu del see ilayha ba ci dëkk ba aw yuqaayi baxaa wala mu jegenteeg moom bi aqal la ci lu yées minal miili ci miir loolu mu ne aw yuqaayi baxaa bi aqal la minal miili mënoon naa bañ ñoom mu bokkul ci wax ji daa wax ne rek fa nga tàmbalee woon wàññi ba ñu gisee ba ak si foofu daal tàmbalee ma tal léegi ne nag mbaa nga ñëw ñëw ba jegeekul tolloog lu yées miil nag loolu ba pour jëli cee boole moom moom daal béréb ba nga xam ne fa nga toll woon tàmbalee wàññi ba ñu gisee ba ak si foofu rek tàmbalee ma tal waaw waaye duñ ci seet nag ba xam ndax li jët ñëw nga ba jege ko moom dëkk bi lu tolloog lu wees mbir mbaa yooyu ñu mutu cee waxaale wa inna waa ndéem yéene na al musaafiru aju tukki ja iqaamata arbaxati ayaamin sax ñeenti